ñu bëgg bu boobaa ñu wax àddina bi yépp ne xudwa xasanaa ngi ni pour jullit yi wara a topp ci gannaawam topp ay tànkam ngir bennoo boobu ñu yàgg a waare yàgg koo wax mu mun ñu mën koo jëmmal te bu boobaa jullit yi dañuy sori loolu itam moo tax ma bañ a yem ci réew mi ma dem ba ci ya waxtaan waa ñoom ñëpp juboo nañ ci kon ñoom itam ñu rafetlu ko moo tax ambassadeur bu arabi Saoudite yebal ndawam gannaaw bu mu yeblee ci réewam ne loola ànd na ci kon teraanga la boo xam ne usratu ñes yëkkati nañ ko waaye mamlakat saudi itam juboo nañ ci ak ñun pour wax ne Sidi Maxtaar teraanga jooju eeyoo na ko ngir ñëpp war ko cee yi loolu nag ñi yegg si ci yow Seydil Bachir doon la ko wax gannaaw buñ ko tegee ci loxo xalifa bi di la wax ne la taxawaay fi la sëriñ bi teg te nga mat ko macha allah taxawaay boobu nga xam ne waxtu wu nekk yaa ngi ci jottali kàdduk mbooleem turuq yi ca nam war a mate maanaam lu taxaw ci quraan ak sunna ak mat madiixu rasulillahi sallallahu ak melokaan yooyu ak naanuwaay yooyu nga xam ne dafay tooyal xol teguwaay foofu nga tegu ñu war a ñëwaat yow ba ci yow fii wax la liggéey boobu gannaaw buñ ko waxee euh, xalifa bi gannaaw buñ ko tegee ci seen loxo waaye yow itam ñu wax la ko ndax yaay kiy jottali yëpp pour mu leeree ci yow noonu ndax liggéey la boo xam ne liñ ci jublu yëpp mooy ñaari baat rek lañ bëgg ñu ànd kalimatu tawxiid wa tawxiidul kalima gannaaw kalimatu tawxid nag juboo nañ ci tawxidul kali tawxidul kalima il faut ñu am ci xudwa i faut que ñu ne nii lañ ko buggee ni ko diw mii defee loolu lañ bugg aalamal islaam yi yëpp defee ko ko kon daal loolu mooy suñuy tànk di ñëwaat di la xamal ne buñ fi jógee ñu ngi jaaree ji tiwaawoon waxee ko noonu Abdul Aziz si al ibn pour won ko ne ko lii ñuy defkat dañoo bëgg kër yëpp jàppale ñu ci ngir teraanga jooju nekk xudwa boo xam ne dañuy jàpp ne ñëpp a ko defandoor te itam na ma xamee Abdul Aziz ak na ma yàggee ak moom noonu la koy rafetloo noonu lay réyee ci moom waaye dafa fekk nag ba ma jógee ca ña ko moom muy alxulafa ci ñaseen dama war a yegsi ci kiñ koy moomale ba pare nag ku may jàllaat ma yegg door la ko mën a jox kon nii la tànk yi jotee ñu ngi yees lu suñ ziyaar ñu ngi yees lu itam suñ cofeel ci barab bi nga xam ne dañ koo taxawal ci taqwallah tabax ko ci e, buggu rasulillahi sallallahu alayhi ak liggéeyal ko ba tax tey ku yëkkati lu jëm ci yonent bi sallallahu alayhi sa xel daj ni su ma ko tegee ci loxo yooyu kon dana yegg kon loola lañ ci am moo tax ñu teg ko ci loxo yoo xam ne buñ ko ci tegee dana yegg ci yonent bi sallallahu alayhi loolu ci lu bëri ci lu tuuti ci lu bëriwul nekk ci xol bi